waa ñuy waa Futurs Médias bàyyi ko benn ko doon jàppale bu baax. waaw mais mais fu mu ne pour man loolu sax loolu loolu du wax ji wax ji mooy nit ki moom bu génnee àddina yàlla moom mooy jël bu ko yàlla jëlee ñu ah, gunge ko ba denc ko fii nga xam ne suñu xel dal nag fi parce que man man man laayeen laa donc su fekkee ni moom dafa ci dundam dafa ñaanoon pour bés bu ko yàlla jëlee ñu denc ko fi sama xel da ci dal ñaanal ko rek nit moom bu génnee àddina doo doo doo xool munoo def dara ba indiwaat ko. du dul ñaan ñaan la soxla nañ ko ko defal mais leneen amul importance. lay wax waa famille ak ñëpp. famille am ñëpp laay wax que ni vraiment massa parce que famille am aussi du waa kër jabaram wax waa këram rek ñun tam famille am la ñu woon donc ñëpp a perte Sénégal yëpp moo perte parce que ñëpp seede bi yëpp benn la ci Ndiaye parce que ci biir dundam vraiment lépp lu mu wane lu positif la mos a ba tey Ndiaye nekk comédien boo xam ne sama waa euh, maa ngi fàttaliw ma woo ko sama bureau am benn projet ak moom ma woo ko ne ko kaay sama bureau mu ñëw toog ma toog ma ne ko dama bëgg a def lii ak lii ak yow jaay jékki-jékki sëgg ma ne ko looy sëgg nekkat mi ngi jooy moom boo ko waxee dara balaa mu lay tontu day jooy ba pare ndax émotion rek la feesoon vraiment nit ku baax la woon vraiment Ndiaye moom loolu lañ ko mën a mën a seedeel di ñaan te te du ñun rek ñoo perte euh, lenn peut-être lu may lu may regretter rek mooy euh, je pense que talent fi mu tolloon sax peut-être que mënoon na weesu fu mu nekkoon mais loolu la yàlla dogal mais vraiment nekkoon na nit boo xam ne li ñu gis si moom ci talent ci moom sax pour man li mu amoon weesu na ko te il avait vraiment des projets mais depuis